bijaayi afdali man lilaahi xallaja su ngeen gisee toogaay bi xam ni jot na nañu ndigal Cheikh Madul Muntaxa ñu ngi ñaan suñu borom bàyyi ko fi te yàggal ko Cheikh Madul Bachir mi yor kaddu gi yoonu murit waaye ci kilifteefu kan soxna Bali moom Cheikh Mouhamadul Muntaxa Cheikh Abdoul Ahad Mbacké moom Cheikh Murtada moom Cheikh Abdoulaat moom Xaadim Rasoul ah mo am mbégte nag di leen woo ci ngontul soxna jaara ji nga xam ni moom la ñuy amal le 15 janvier fii ci Massalikul Jinaan bis boobu nag muy bis boo xam ne nag dañu koy waajale màggalu poroxaan ah am addi joo xam ne daa jëm poroxaan ca turandoo maam jaara ya at mu jot nag mu cheikh Mouhamadoul Mountakha nag jox ndigal loolu doom ju baax jii di cheikh Abdoulaat moom mu Moutada moom cheikh Abdoulaat bis boobu nag woo nañu ci ñëpp bàyyi wuñu kenn muy bis boo xam ne nag ah ñu ngi ci soññee nag ay matelas waaye ak ay basang nag. ñu ngi woo buntu kër Cheikh Ibrahima Fall yëpp li tàmbalee ci kër Serigne Fallou Fall ba ci kër Serigne Gunda Fall ñu ngi leen di woo daayira Maam Serap Fall bu nekk Sandaga ñu ngi leen di woo daayira Maam Serap Fall bu nekk Colobane ñu ngi leen di woo. daayira maam Cheikh Fall yi nekk Tilène ñu ngi leen di woo daayira maam Cheikh Fall yi nekk Asalam ñu ngi leen di woo daayira maam Cheikh Fall yi nekk Kassor ñu ngi leen di woo daayira maam Cheikh Fall yi nekk Yoff ñu ngi leen di woo fépp fu waa kër Cheikh nekk fii ci région de Kébémer ngi lay woo ci bisub soxna Jaaratu Laahi bi kuréel gi mi fii ci Ndakaaru say dégg suñu kaddu ñu ngi lay woo ci bis bi di ci woo kuréelu xasida yëpp waaye di ci woo daayira yi nga xam ne ñoo nekk ñun fii ci Masalikul Jinaan di ci bis bi waaye du ñu fàtte it suñu jàmbaar ja soxna Fatmata Fall Lamp Maam Jaara moom ñu ngi koy woo di ci woo waa kuréel gi yëpp. may woo nag man Adja Fature poor maa ngi woo waa poor yëpp daayira soxna jaare yi fa nekk. waa marché central yëpp daayira soxna jaare fa nekk ñu am jëwrin bu baax nag muy Alaaji Omar Sarr ak daayira maam faa wàdde wele ba fa nekk ndax ñëpp bokki lañu ay bokk lañu te ñun ñëpp ñoo bokk lépp maa ngi woo ñëpp nag. di wax ne lépp lu ci waay def rek ca daara ja ca poroxaar balaa déwén yàlla na la sa yokk ba nga yëg ko noo ngi woote waa Géejawa yëpp daayira Géejawa yëpp daayira Masalikul Jinaan daayira Nenne sàll daayira Mara Sarr ak mboolem daayira bu fédéré ne ci Géejawaay Ahmadou Amar di suñu jëwrin ñi ngi leen di woo ci jaayante bi matelas yi ñu jaayante defoon nañ ko daaw fekkee déwén yàlla ñu ko fekkee at yu bare bare bare di woo ñëpp nag bàyyiwuñu kenn ci jaayante bi mbiri sëñ ba bari ko diwtiir rek la doo ci dugg nga ci taqee yaa eh, woote bi ñuy woote nag yëpp nga jëm si Porokhane ci maam Jaara Bousso te defe naa bu ñu wootee ci maam Jaara Bousso rek tubaarkàlla jigéen ñëpp war nañoo takku te dinañ takku di woo Adja Khady Bey jàmbaari sëñ Bamba ji di di ko woo nag di di woo tubaarkàlla ñi mu nekk ñëpp ñu ngi leen di woo Adja Ndoro Tunkara di woo ñëpp rek ñu daal ñu ngi woo daal képp koo xam ne xeebuñu dara dax sëñ bi dafa joxe lu mat la ndigalu basang nañu na ñëpp takku rek na jigéen ñëpp takku. dimanche la 15 janvier fii si diwaanu Massalikul Jinaan muy journée culturelle Maam Jaara Bousso. fas yéene ko ànd ak suñu waajur yi nga xamante ne moom mooy jëwrin alaaji Makki yu fay fii si diwaanu Massa. ñu fas nag nekk si ndigal loo xamante ne dañuy def journée bi muy dimanche xëyee ko ba ngoon jot. maa ngi woote nag mboolem kuy jëwrinu daayira fii ba Ngor Wakaam Yoof dem ba Sibixutaan ndax ñoom ñëpp dañuy ñëw Massalikul Jinaan maa ngi leen di woo ci bisu soxna jaara jaaratulaay ma di ci woon nag ñoo xam ne nekkuñu fi muy ajaratu awa Jóob maam jaara jiite daayira Masaalikul Jinaan bu maam jaara ma nga ca Amérique di ma woo bët bu set di dajale ay xaalisi matlo pour indi ko ci woo Anna Mody Ndiaye di ci woo Anta Sare say joxaane mbenn caam ñoom ñëpp maa ngi leen di woo di ci eh, fedd suñu kóllëre nag ak soxna Baali Muntaxa ndax dañoo yàgg soxna Baal di nit ku baax bëgg maamam lool di ko liggéeyal ñun itam ñu bëgg ko lool ndax soxna jaara ji Mbàkke yu dëng nee na diwaan bépp bépp ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci ndakaaru ak li ko wër nanu jàpp ci bis bi bii ji Mbàkke yu fay ma ngi ci woo ñëpp góor jigéen mag ak ndaw ma ngi ci woo waa Wakaam Touba Touba Wakaam yi kër sëñ Touba gi di ci woo Touba Parcelles